complot lo bo xamni ñun ñoko xam mais il faudrait quelqu'un ku dëkk Touba am les capacités décortiquer ko wax ko ci olof de façon explicite mu leer kon mission bi nga xamni ça m'a été convié c'est pas pour rien ma jógee États-Unis ñëw ci réew mi ana loolu la wax discrimination complot ba paré bay berñu jëppi ñu nit ñi dañoo jëppi sax à la limite parce que am na ci ñoo xam dañ naan waa Touba daa jëriñu nangam nangam non bàyyi leen foofu c'est-à-dire nit ñu def moo ñaaw mais loolu ñun rek ñoo ko mën a dindi ñun rek mu conflit day am ñun ci suñu intérêt wu seen y a un grand danger Touba danse au-dessous d'un volcan je te dis par rapport à la situation conjoncture économique bi am Touba bombe sociale la bu ko désamorcé wul bu ci a c'est très dangereux ce qui est en train de euh, d'arriver dans ce pays ñi xalé yi ñu del dajalo leen seen électorat bi ñu jël ko téy ko ni bis bu ñu amé législative aw yat lañ koy def te dinañ leen ci chifay ñoom ñep loolu lu leer la la wax ni donc loolu mom la la wax benen 5e vague nomination amad na manam gisuma ci kenn ku dëkk Touba Touba dégg na amna kuñ fa jox benn poste poste boobu biñ ko fay jox benen poste fa nekkon ku ñi wax ku sante ñang ku yoron ku nekkon directeur benn banque bo xamni ni banque bu xawa yema may la bu ndaw mais bobu dañ ko rocci ba paré jël benen poste bi dokk doo ko jox nguur gi kon joxuñu dara. Mhm. ndax la fa nekkoon lañ fa jëlee moo gën sax li li li ñu jox waa Touba nag ñoo war a am fulla ak fayda bàyyi toppe bi. bàyyi toppe bi ci wàllu politique.

xamante ne nii peut-être ñoom ñooy jël gaal gi di génn réew mi ñeneen ñi jaar ci désert bi ñeneen ji jël yoonu Nicaragua bi xëy na désespoir wala bokk yaakaar bu tas boo xamante ne nii euh, dañu ko amoon ci biir réew mi moom moo tax ñuy dem ñu gis ni euh, régime bu bees am na mais xale yaa ngay woy di continuer di dem récemment rek am na benn vidéo boo xamante ne nii bu viral daanaka ay ndaw yu nekk ci désert bi di euh, woo le président de la République Diomaye Faye à ce que mu génn parce que nous nekk ci ay conditions yu tax lool may wax ni dégguma benn yoon je dis pas que amul mais dégguma benn yoon depuis euh, ñu accéder au pouvoir le régime actuel euh, ñu wax ci cette question là lan moo xew exactement. gis nga ñii bi opposé wu dañ doon wax ni ñi fi nekk ñoo sàcc suñu alal ñoo milliards de mi moo tax yi di jël Nicaragua bi di dem gis nga

Madame lion bu taxaw ci biir tout le monde sait que le lion est un carnivore mais quand le lion promet au chèvre que je deviens herbivore quand je serai élu moi, lion yàpp lay lekk de lay dundee mais buy campagne est a falu day dem ci bëy yi ni leen man bis boo leen ma falee ma commencé di c'est la même chose ñoom ñëpp ay lion lañ ni politique Sénégal mooy li ma wax rek dama koy waxaat dama koy répété waat du ma taxaw ci question bi parce que dama ciy def émission Le mhm. parti politique du Sénégal c'est une prison de différentes cellules ñoom ñëpp ñi nga xam ni école sénégalaise moo leen formé ñu nekk ci admi nekk ay administrateur jaar ci ay concours bénéficié wu l' éducation nationale du Sénégal nekk fii di dundu seen àdduna ñoom ñu wëlbatiku ñoom ci seen bopp di xiiroo ko ŋaayoo pour xëccoo réew mi ñoom ñëpp a yem. Mm. est la campagne du lion ku ci mën di toog ci réew mi ci suñu alal la ñuy dund deretu baadoola mooy seen mooy sim cere buur te li ma gëm mooy bu tabaski jàllee li ñu commencé ci jakartaay commencé ko ci ñi nga xam ne ay vendeur à la lañ. ak ñi nga xam ne ci ay marché hebdomadaire la ñu nekk commencé ko ci borom charrette yi nar ko ci apprenti yi di nga gis xale yu jaar ci géej gi dox dem. loolu la ko wax. d'accord voilà. alors tuddu nga ci ñenn ñoo xamante peut-être euh, au cours de l'émission dinañu dellu ci wat ci seeni mbir mais justement lan nga japp ni mom lañu wara mëna def pour arrêter cette saignée là parce que euh, dañu gis ni yef yaa ngi euh, avancer et il faut absolument qu'on essaie de mettre des stratégies wala des mécanismes yo xamante ni nii xëy dina tax xalé yi amat espoir mëna tok ci réew mi mëna jëriñ réew mi également. Ana xale yi pour ñu am espoir u toog réew mi il faudrait d'abord ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu jël seen ay responsabilité lii état du Sénégal mënu ci dara dara man na ko gën a garawal parce que promesse yi nga xam ne defoon nañ ko xale yi mais mënul dara ci fléau immigration sénégalais yi nekk bitim réew ñoom ñoo créé vague d'immigration bi dama cee dafay invité invitation invitation yi émission yi émission moo tax bëgguma ci sori sénégalais yi nekk bitim réew ñoo war a organiser wu jël seen alal bañ ko ci comble du def un investissement bien ficelé c'est-à-dire da ngay ñu sénégalais yi milliards deux milliards di ci mais deux milliards yooyu ci le comble du fainéantisme lay dem laaj ma luy comble du fainéantisme comble du fainéantisme moy suxat ak ñak jom manam da ngay tabax R di glorifier wan sen ni dem nga Europe di jël alal ju bari di di entretenir plus de 20 personnes ci di len dundal di len jox ñi nan di len jox ñi nan bu ben ampoule lak ci kër gi sax ñu woo sa yaay moy doon capitaine équipe bi tak brassard bi ñepp lakatu ci ginnaw mom ngay gis par rapport ak li ñu am ci interprétation éducation éducation bi yaay xeer la dom dom nen la bu lamp laké ñun la sama yaay nena bu douche bi fessé ñun la sama yaay nena bu tabaski gi ñëw ñun la sama yaay nena bu bu nda bu robinet bi di di sax ñun la sama yaay nena ngan nga nek fële yow nek ci glace gi nek ci taw bi ci bus ci train doo tubaab yi di la jànni léeg nga jege leen ñu seexlu la ñuy liggéey guddeeg bëccëg mel ni ay mbaam li nga am lépp danga koy def ci aw askan def ko ci famille soo ñëwee boo fi amul dara mel ni man ñu ne yàgg na ci àll bi pourtant amul dara bu ñu def bu ñu waxoon loolu xool seen biir rek xam ne am nga dara li nga am danga nga ko def ci seeni biir ñoom loolu moom mooy waral xale yi mu am benn représailles sociale bu ci am loolu la ñuy gis loolu ngay def noonu di ko def te mënoo ko moom la ñuy gis bëgg ko def mu nekk benn fierté ay damaa tekki maa dem yor sama njaboot yor sama yaay yor sama baay yor samay waajur fàtte yow doom yi nga xam ne ñoo war a juddoo ci yow nga yor seeni responsabilité war a def ci ñoom investissement humain nga xam ni budget la boo xam ni pendant vingt et un ans du tege du tegee ko ci sa kaw mm. li nga am lépp balaa ngay am njaboot ci ñoom nga koy def donc loolu moo waral xale yi di seen bopp pour jël gaal gi pour dem mooy li ma la réew mi li mu soxla des yoo xam ni dinañu am capacité wu jàngal sénégalais Comme les Sénégalais se croient les plus intelligents de la planète. Pourtant, nous sommes les cabris du globe, sans le savoir. Ah oui, je te dis la vérité, ma chérie. Nous, on a sillonné le monde. Hein. j'ai fait pas mal de pays d'Afrique. Gisna Asie Gisna Europe fu ci nekk dem naa faire li ñu mën ak li ñu manqué Xol ba fi mu fi daj dëpp gi États-Unis fa la bàyyi fa la ñëpp rêvé dem fa donc dans am objectif bien ficelé Moy que ba sénégalais nek ay nit d'abord Lolu moy sama objectif lolu motax ma rew makoy koy profité ci occasion bi képp koo xam ne yaa ngi seetaan li may wax dugg la nga bëgg rejoindre ci mouvement bi nga xam ne moo war a changer situation wu réew mi

on va vers wala li fi nekkoon ba tey moom mooy wéy di fi nekk. ana li fi nekkoon moy gën moy tane junni yoon li fi nara a nekk dans les jours à venir rupture dina am mais rupture bu dégradé moy am du rupture bu ñuy jëmele vers l'avant du caagi ñi fi nekk mënuñ bëgguñu bëgg nañ mais dañu mënul xamuñu. fa ma taxawoon laay taxaw ñom bi ñuy commencé di laaj nguur gi depuis 2019 ba tey fi ma taxoon position bima amone lama la doon wax mom lay waxat te bu ci kanamee li waji nan le temps est le maire des juges bu ci kaname lay commencer leer ci bëtu sénégalais yi xamal ni ñi fi nekk mënuñu ana gaay kañ lañ fi juddu yaroo fi màgg fi jàng fi ba liggéey fi 15 ans ba paré bëgg fee juk bëgg fee am expérience am fi xam-xam xam fi lu jëlé Sénégal fii bëgg ko yóbbu feneen. mënuñu du caaginu dañu télé bëgg nañ barké borom Touba Mbacké bëgg nañ dañu mënul parce que amuñu xam-xam bi amuñu vécu bi amuñu expérience bi amuñu parcours bi euh, euh, mais quand même mënut nek nekk mënut a man xam naa ni réew mi du dem fenn day gëna metti day gën a metti man maa la ko wax li am solo nag mooy ñoom ñu am courage yu génn wax nit ñi ni réew mi day gën a metti kaay leen ñuy àndandoo ñu tabax suñu réew mi su ko defee nit ñi injecté leen parce que nit ñi ñu ngi taxaw ba tey naan yàlla bu muy dëgg de. alors dans les jours yàlla bu muy dëgg <laughs> xam nga li yàlla bu muy dëgg yàlla bu dëgg xam nga mooy lan. benn sàcc bu duggoon ci benn kër bi sàcc ay xar ko mais dafa lëndëm kër gi. mu yéeg miir bi rek cëppeelu au lieu mu gis suuf si mais dafa cëppeelu nekk bi mu dafa def tout ci benn teen xam nga boo yéegee ci miir moom boo cëppeeloo 3 4 secondes war nga àgg ci suuf si mais dafa daw une minute ci suuf si àggut mu gëm nag ni ci teen la dugg naan yàlla bu muy dëgg yàlla bu muy dëgg loolu moo dal peuple sénégalais ak ak ñoom Ousmane Sonko yàlla bu muy dëgg nit ñi boo gisee diñ ne tekki ni xoolal bëgg ñu affaire bi nekk ay fen parce que nit ñi dañu amon ci ñom yaakar dem ñu dof lo leen quoi def leen day dof ñu dem voter leen pour rien motax ñu tok rek fiñ tok ni pat naan yalla bu muy deug yalla bu muy deug mais xamaguñ ni affaire bi mu mën a mais pire la. alors euh, justement <laughs> puisqu'on en parle euh, hmm. le euh, premier ministre Ousmane Sonko dans les jours à venir warna dem fa nga xamante ni modi assemblée nationale def sa déclaration de politique générale lan nga ci xaar. non li ma métti mooy du fa fekk quoi man lool rek mo ma métti li ma métti mooy du fa fekk. su ma amoon bagget magique boo xam ni damay wóor ni yàlla mën na maa jàkkaarloog moom wax ko li gën ci Sénégal daf may soppali rek ma nekk député ba ma jàkkaarloog moom mais boo c' est intéressant parce que il faut mu dem def ko jàpp naa ne loolu la ñu waroon a nañ ko def sax yàgg na bu fekkee amul amul délai waroon nañ ko def dem taxaw vraiment wax ak sénégalais yi ni leen ñun kat fii lañ leen jëlee ki ñu fi fekk certes li mu fi tabax moom bu ñu ko doon peinture ci juróomi at yi du mat ñoom waaye def na lii waaye ñun lii lañ bëgg def muy lu bees liñ bëgg a def mooy danañu réformer l'administration sénégalaise une priorité après réforme yi éducation réformer l'administration sénégalaise les banquiers les financiers ñi nga et domaine les douaniers la police gendarmerie les magistrats les avocats, les juges les hommes d'affaires les patrons de presse nous exclure dans le jeu politique du Sénégal Nous ñoo jël ce pays en otage mu créer un déséquilibre soxna si da ngay gis ben professeur buy enseignant, ngaay ngaay la enseignant, enseignant jàngal nit bay jàngal doomam nit kooku mu jàngal jàng fa jóge fi dem dem ci université yi fa dem ci concours ENA génn fa dugg biir impôt et domaine yow mi nga un ne yow yaa ko jàngal yow yow mënoo am salaire enseignant, un francs kee moom am ay quota ay caisse noire 15 millions de francs par par par par trois ans mu créer ben déséquilibre réew mi organisation yépp dafa am ay déséquilibre loolu lañu ñu war a revoir te ñun loolu dafa bokk dafa nekk ci suñu préambule euh, li li li li ñuy bind ñun waa PAM dama ni la néew ñu ñun bu ñu ñëwee lépp dana yem de mais kenn ku ne di nga gis sa bopp ci réew mi dinañ repropager les dividendes de notre pays. Mmh. chaque sénégalais foo mën ci nekk sur le tendu du territoire li nga ci tolloon dana la fekk fi nga nekk nga jot ci sa wàll mais fii dafa am ñuy dund dund gu jag gu jéggi dayoo am ñuy dund dund gu déggan te ils sont pas responsables de ça donc loolu loolu loolu mooy li may xaar ci ci ci ci kii bi ñu wax fa lu leer wax ak wax ak wax ak sénégalais wax fan la ñuy jëm comme ñi ko euh, ñenn ñi di waxee ndax jàpp nga ni euh, euh, gouvernement bi mën na nekk wala boog mën na subir li nga xamante ne nii moo di censure mën nañ leen dóor motion de censure non man su ma nekkoon député du ma fa woo voté du ma fa dugal ay proposition

ñeme nañ ko parce que ñii tamit bi ñuy opposé wu defoon nañ ko Amadou Ba malheureusement jàllul et dans tout ça qu'est-ce que lu ci réew mi di bénéficier dara am ay junniy junniy millions yi sénégalais yi tok nak di leen sétane xamni ñom ci cinéma la ñu nek c'est des farfelus ils sont dans un film ñu togon di seetaan ñooñu nag la mëréew di interpellé ñooñu ñooy mëréew yi ñun ñi nga xam dañ danañ jóg constitué wu fexé nak ensemble national bële di ñëw ñu am fa majorité mais duñ fa dem pour contre Ousmane Sonko ak Diomaye lepp lu amal njariñ réew mi wara a ñëw foofu ñom buñ ko indé danañ ko xool te boobaa danañ fexé mu jàll. lépp loo xam ne amalul njariñ réew mi bu joggé ci opposition bi sax bu fa ñëwee. Mm. buñ ko xolé amul njariñ réew mi dañ koy kale. loolu moy citoyen être juste avec toi-même man japp na loolu sax mooy véri la véritable définition ou intellectuel. intellectuel. Hmm. ayca ñu euh, dugg nak ci euh, sunu biir kër soo ko hmm. wax ci euh, presse bi nga xamante ni mom nga.